mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël fukkeelu aaya ak benn ci suratu ibrahim aaya onze ci suratu ibrahim qaalat lahum rusuluhum qaalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñu ngi sant sunu boroom di ko ñaan mu julli sunu yenent bi mu yónni woon ci ñun mu ñuy bégal ci di ñuy xupp bokk na lim ñu doon bégale mooy mas na toog ak saxaaba yi benn bis mu ne ana kan ci yéen mooy ñëw dem butxaan benn àll bu soriwul woon dara bu demee mu fekk fa benn gileemu tukkal walla ñaar muy gileem gu mat sëkk mu yóbbu ko këram ci du ci am benn bakkaar saxaaba yi na ko loolu kay ñun ñépp a ko bëgg mu ne moo ne day kenn ci yéen demoon ca jàkka ja jàng benn aaya moo gënoon mu demoon masalan padduwa ñu may ko fa giléem gu mat sëkk su fa jàngee ñaari aaya moo gën ñaari giléem lum fa jàng ci ay aaya lim boobu bu ko amoon ci ay giléem lam am ci aaya yi moo ko gën a màgg loolee kon mbokk da ngay gis ni bokk na ci lu ñu yaakaar muy jullit bàyyi këram ñëw toog ci néegu boroomam di jàng téeru boroomam loolu ca yonent bi digee yal na yàlla defal ñu ko àdduna ak alaxira
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم مني قالت لهم رسلهم نون لا يننتي وخي سن خيديا إن نحن إلا بشر مثلكم نام ñun day nekk ñu lu dul nit yu mel ne yéen rek walakin allaha yamunnu ala man yashaau min ibaadihi waaye yàlla day mooy kiy baaxe ñeel ko mu soob ci ay jaamam wa ma kaana lana an naatiyakum bi sultaanin illa bi iznillah nekkul ñeel ñu ñu leen di dikkee benn lay xanaa lu dul ci ndigalu yàlla wa ala allahi falyatawakkal almuminuun ca ci yàlla rek lay wékku ñi nga xam ne dañoo gëm wa ma lana alla natawakkala ala allah ma ñun lu ñu ñeel ba duñu wékk suñuy mbir ci yàlla wa qad hadaana subulana te yàlla moomu jubal nañu suñuy yoon wala nasbiranna ala ma aazaytumuna sikk amul ci ne daan muñ ci lor yi ngeen ñiy lor wa ala allahi falyatawakkali almutawakkiluun te ci yàlla rek lay sukkandiku ña nga xam ne dañuy sukkandiku mi ngi noonu وقال الذين كفروا لرسلهم نيل وخي في رنيل سنين انتيا لنخرجنكم من أرضنا دان لين جن سنو سوفسي أي سنو دكبي أو لتعودن في ملتنا ولا نجن دلو سي سنو مبالو مي موي يون بني ترل ديكا جامو يالا فأوها إليهم ربهم نيل يالا وهيو جمي كسك يننتيا مو وهيو جم تي نيوم سن بروم ne leen la nuhlikanna zalimin ñun yàlla day daañ alak tooñkat yi wala nuskinannakum al arda min ba'dihim daañ leen dëkkal ci suufit gannaaw ba ma leen alagee zalika liman xaafa maqaami lii day dana ñeel képp ku ragal sama taxawaay wa xaafa waid ca mu ragalit samay mu ragal tëkku ay tëkku yàlla ya jalla wa ala mi ngi noonu mbokk julit bi ñu fi mujjee daje sunu boroom mi ngi ñuy nettali mboolemi yonent lan la mboolemi xeet tontu leen ca mooy al kufru milla waxida la nga xam ne mooy kéefér jamonoy nuux ba sun jamono benn rekk la la nekkoon tawxid it benn rekk la yonent yi ñëw nañ leen woo leen ci tawxid moytuloo leen shirk ñu ne leen kët yéen li ngeen bëgg mooy ñu bàyyi li sunu bàyyi doon jaamoo yàlla kon ñoom amuñu woon problème ca la leen yonent yi woo jëmi mais lañ leen di bàyyiloo loolu mooy seen problème loolu nag bu ngeen ko bëggee na ngeen ñu indil lay boo xam ne lay yu leer la yonent yi daal di wax benn wax aaya boo xam ne lu mel ne moom bari na ci téerab yàlla bi ca mooy yonent yi ne leen naam ñun day ay nit lañu comme yéen waaye yàlla mooy baaxe ku ko neex ci ay jaamam mbokk loolu yaa ngi koy fekk masalan suratul kahf qul innama ana basharu mislukum waaye yuuxa ilayya yonent bi di ko wax ñun nit lañu comme yéen loolee mbokk da ngay gis ne waaye dañ yàlla ñu baaxe mooy tontu yéeféer yi ca moo di ne nit lañu comme yéen waaye yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam wax ak ñoom nam bëgg ñu jaamoo ko ko kon yonent yi dàqu ñu la yone la yéeféer yi ne ñun nit lañu comme yéen waaye itamit mbokk tontu boobu sunu borom tontu yéeféer yi ngalawaay képp ku jéggi dayoo ci diine it loolu sa tontu la moo dine ne da ngay gis ne tey depuis jamono yu jëkk ya ba baa nga yegsi ci yahut ak nasaraan yahud yi yëkkati woon nañu seen borom xam-xam bu ñuy wax ozayru yonent la am du yonent ala kulli xaal ozayru ñu dem ba ne moom kat dootul nit ordinaire doomu yàlla la nasaraan yi dem yëkkati isa ibnu maryam ba ne dootu nit ordinaire doomi yàlla la waaye da ngay gisit ne ci yonent bi bi muy dund yenn saxaaba yi ñi ngi ko commencé woon di tagg waaye lan la den wax laa tatruni kama atarti nasara ibnu maryam fa innama ana abdu fa qulu abdullahi wa rasulu bu leen ma yëkkati ba yéggee ma fi nasaraan yi yóbboon isa duma dara lu dul jaamu yàlla da leen wax jaamu yàlla yonent yàlla ca mooy bashirun mislukum yuha ilayya innama nahnu bashirun mislukum walakin allah yamunnu ala man yasha loolu kon de tontu ñeel yéeféer yi waaye di tontu ñeel ku ëppal ca ña gëm yonent yàlla ya ca loolu mbokk julit alhamdulillah xëy na am nañu bari di bokkaale sax ci yonent bi waaye bokkaale gi mi ngi ëppee ci ñi ñuy tudde ay sëriñ tey lañuy yëkkati ba paasale leen nit ordinaire loolu moo tax sax ba da ngay dégg ñu ne yaayam ci zahir wala baayam ci zahir loolu njuumte munta paase loolu nit kum mën a doon nit rek nga mën a doon amma yonent yi suñ différence ak ñoom mooy yàlla moo leen baaxe def leen ay yonent léegi it bu dee li ngeen di wax ne il faut ñu indi lay te xam ngeen sunu borom musu yu ne benn yonent lu dul jox na ko lay boo xam ne kenn mënul loolu loolu la ñuy tuddee mu'jiza muy mu'jizaat yem doon jox ay yonentam mais ndax yéefir yi doyloo nañu loolu déedéet ñoom dañoo créer seeni mbir ne su ngeen bëggee ñu gëm leen na ngeen def nangam or ko sunu borom du ku ñuy jox ay ordre yàlla mooy buuru ñépp mooy def lu ko neex jox ko ay ordre am nit ñi war cee topp mais du ku ñuy jox ay ordre mi ngi noonu yal na yàlla yërëm jeune ba ko tontu woon profam ba ci Russie ñoo mën a ko yow foo jóge Sénégal dégg naa yéen da ngeen da gëm yàlla am na kaza wa kaza mu ne ko waaw yàlla kay am na mu ne ko waxal yàlla mu dagg samay loxo kon mu ne ko ñun yàlla bi ñuy jaamu kenn du ko jox ndigal mooy digle nit ñi war cee topp gis ngeen loolee kon mi ngi noonu léegi nag yonent bi alayhi salaam loolu la ko yéefiri waxoon da ngaa bëgg ñu gëm la ah loolu kay yomb na léegi da nga yëg ko asamaan nga wàcc téere ñu xam ne kon yow lii ci yàlla la jógee wala boog nga toxalal ñu suñu montagne yi wala kaza wa kaza comme nañ ko junje woon ci àllarba ji passé ñun mënuñu leen ni indi lay illa bi iznillah doonte ne ne lay bi gën a rëy bi mu indi benn yonent musu ko indi muy alquranul karim di lay bu sax bi ila yawmiddin suñu borom dëkk ci nit ñi ak jinne yi ne bu doon nit ñi ak jinne yi dañoo daje ngir bëgg indi lu mel na alquran mënuñu ko indi même buñ dimbalantee seen biir قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا donte ne kawte fi yonent yi passé loole moom passé na gisatuñ ci benn trace gile musaalax gaag yetu Moussa waag la Isa doon def amatuñ ci trace waaye alquran mi ngi fi di dëkk gu yàlla dëkk nit ak jinne ba ila yumi din léegi nag bokk na lu yonent yi waxoon ñun day ah ay julit lañu gëm nañ ko ci yàlla rek la julit war a wékku ca mooy na am mbokk ab jaam day gëm dogali yàlla gëm ndigali yàlla def ay ndigalam ca léegi xaar lu yàlla di dogal ci moom amma di jéem a indi ay kawteef wala ay xar baax loolee mbokk yàlla sant ko benn julit musu koo sant sax ab yonent yonent di daan toog ba yàlla jaarale ci loxoom xar baax gis ngeen kon wa ala allahi falyatawakkalil muminuun yonent yi bokk ca luñ ca wax ne mu ñun lu ñuy tee wékku ci yàlla ci yàlla jubal nuñu suñuy yoon subula naa boobu loolu da ngay gis ne mooy yoonu ngëm gu sell yoonu jëf yu sell masalan doomu aadama bi lépp da ngay gis ne yoon boo jaar rek na doon birul waliday ni def ñekk say waajur yoonu na ngay liggéeyee yoonu na ngay jihaate lépp l'islam moo la ko war a tëralal kon jubal nañu suñu yoon léegi nag comme yàlla jubal nañu suñu yoon lor yi ngeen ñuy lor daañ ko muñ gën jaa màgg ci muñ te loolu it mbokk lan lay lay jàngal mooy mboolem xeet yi fi jaaroon na doon yonent lañu wala ay julit nekkoon nañ di leen lor te foog naa loo gàtt gàtt nopp war a dégg yonent bi ak i saxaabaam lu ñu dajun biir màkka ci ay lor yonent bi mucc ci abubakar mucc ci kenn ci saxaaba yi mucc ci lor yoo xam ne nii un jéggi na dayoo ci sax un pour nga mën ko comprendre daan mun lor yi nga xamee ni yeneen ñi nga koy lor te ci yàlla rek lay wékku ay lay sukkandiku képp koo xam ne da ngay sukkandiku te loolu it mbokk mi ngi noonu diine lislaam ñetti façon muñ moo am mooy muñ ba def ndigali yàlla mi ngi noonu yi nga xam ne dala koo digal ak tere ya nga xam ne dala koo tere loolu lépp muñ ngay def pour mën koo appliquer ñaareelu muñ bi mooy nga muñ nattu yi lay jóge ci yéeféer yu bon yi nga xam ne bëgguñoo gis kuy jaamu yàlla ñetteelu muñ bi mooy nga muñ dogal yu jóge ci yàlla directement amma nekk yi nga xam ne yéen moo ci seen wàll mooy sabote yi ngeen ñuy sabote dóor yi ngeen ñuy dóor lool de daañ ko muñ ca it daañ jël suñu mbir daal di koy wikk yàlla subhanahu wa taala ca loolu it mbokk nga la way nañ koy gànnaayoo rawatina suñu jamono ju jafe ji وعلى الله فليتوكل المتوكلون tey boo demee gaa yi xool bilan ba tey rek da nga koy dégg nit ñi dañ naan ëllëgi Sénégal lu lëndëm la jaxasoo bi kaza wa kaza ëllëgu avenir jeunes yi lu jaxasoo la waaye mbokk loolu yépp yow ndawal julit xam nga looy gëm wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja di loolu la yàlla wax day ku ragal yàlla dana ko may génn waay wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku wékku ci yàlla yàlla doy la su ko defee yow ndawal julit sa problème ne nekk jaamu yàlla jalla wa ala nan ngay wékkoo ci yàlla ba pare yàlla sant la nga bañ nan ngay wékku ci yàlla yàlla digal la yàlla tere la nga def lum la tere ba pare naan da ngay wékku ci yàlla kon fexeel doon jaamu bi yàlla la nga jàng ci diine nga jàng ko lay ndigal defal lay tere bàyyil wékkul sa bopp ci yàlla lu situation jaxasoo jaxasoo jaxasoo sa borom dana la may maxraja mi ngi noonu sa borom dana la may génn waay dana la wërsëgal foo ko foogawul ndax sunu borom mu ne ah wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu inna allaha baaligu amri yàlla lu mu bëgg a lu mu yuutu jot ko ak lu mu jafe-jafe yàlla lu mu yuutu jot ko kon wa ala allahi falyatawakkalil mutawakkiluun lii nekk benn discours bu leer boo xam ne lan moo ci waroon a des mooy kon seet leen li ngeen gëm ngeen jaamoo ko yàlla ñun ñi ngi nekk suñu shirk waaye mbokk mushrik bëggul dëkk ak kuy dund tawxid loolu da koy déranger da koy déranger loolu moo tax ba da ngay gis lan la yonent yi déggoon ci xeet ya mooy hey mënatuñu tolérer ngeen nekk fii naan da ngeen di bañ sunu xërëm yi ñaar moo mën a am da ngeen delluwaat di jaamoo yàlla ni ñu koy jaamoo ay di ko bokkaale wala boog daañu leen génne la nga xam ne moom mooy sunu dëkk bi ca mbokk da ngay gis loolu mboolem yonent menacé noonu lañ nañ leen ko ba yaa ngi dégg ashabul kahfi sax la ñuy wax ah bu dee na ñoom gis nañ leen day da ngeen dellu seen xeet bi wala boog yarjumunakum dañ leen dóori dóori xeer ba ngeen faatu lii it mbokk julita alhamdulillah sunu borom am na lum ci woyefal sunu jamono yi tey ndax jafe na nga dem dëkk buñ naan kenn du fi wootee ak diine kenn du fi julli kenn du fi nangam amma xeet yu jëkk ya rawatina yonent bi alai salam nekkee ci makka bépp jeune bu masaan feeñal diine mbugal yo commencé na ci sa kaw gis ngeen mbugal yo commencé na ci sa kaw loolu da ngay gis ne gënoon na tar ci jamono communisme dur bi gars yi di samp seen communisme ci Chine ci Yougoslavie te feneen ak feneen mais alhamdulillah ay yombal am na ci loolu dëkk yooyu yëpp boo demee tey ay jàkkaa nga fa ñu ngi wax laa ilaha illa muhammad rasulullah te fekk ne kenn bundu xataalul leen loolu xéewalug yàlla la waaye maala saf loolu du mën na fay ci kaw suuf te it li ci metti mooy ndax bu yemoon ca yéefar yi rek sax dana neex a dégg mais léeg-léeg nga dem même ci jullit nga gis ay jullit yoo xam ne daañ bund xataal seen moroomu jullit ca diine ba nga xam ne moom lay dund dégg naa ci rajo bu yàggul dara ci loo xam ne état Sénégal nu mu ko mën a seetaane jaaxal na ma ay chinois yu ñu dañu nekk fii yor ay travaux jamonoy koor dañ ne képp ku woor dañ lay dàq di dégg ngeen loolu ci rajo bi mi ngi noonu ku woor dañ lay dàq ndax loolu war nañ su ko def ci état bu mel ne Sénégal waaye da ngay gis mbokk ay borom kër yoo xam ne julit lañu dañuy dem jàkka ba pare ne sama kër gi jigéen di fi muuru ndax mosu leen dégg loolu ah kay mi ngi noonu gis naa koo xam ni gannaaw yàlla looloo tas ab sëyam mooy kër gi kenn du fi jigéen du fi nekk di fi muuru ndax ñoom gëmuñu ne muuraay yàllaa ko digle dañuy gëm ne muuraay identité la benn mbooloo gis ngeen da ngay gis ñoo xam ne dañ naan service bi kenn du fi julli loolu yi tamit nekk ay loo xam ne ni ay njuumte la bal da ngay gis ay doomu aadama yoo xam ne dañuy jàpp ne kenn koo xam ne xam naa ko bu baax a baax a baax moo dëkk fii ci yëmbal bis baay bi woona benn waay na ko ñëwal ngay sukk na ko jébbal naa la sama bopp adduna ak alaxira mu ne ko bàyyi man jébbalu naa ci yàlla gaa yi ibrahima ba ko sunu borom ne ko aslim lan la waxoon aslamtu li nuux am déet aslamtu li huut déedéet mooy aslamtu li rabbil alamin bàyyi jibbal naa sama bopp yàlla mu ne ko kon kër gi duñ ko bokk kër gi duñ ko bokkati loole mi ngi noonu mbokk julit koo xam ne mën naa la wax turam mën naa la wax santam koo xam ne baaliwul tuxul cigarette njaalowul deful dara mais baay bi gis na ko mi ngi góorgóorlu di jàngal quran di dem ci jàkka ji mu dem wuti na ko fokk nga def loolu boo ko mun def da ngay génn kër gi musiba munta passé di loolu la xeet yu jëkk ya waxoon mooy da ngeen dellu ci sunu yoon bi aw la nuxrijannakum wala ñu génne leen sunu suuf si lii bi nga xamee ne ni am na sunu borom yàlla ne yonent yi muñu leen gis nga toñkat yi danaa leen mbul danaa leen alak la nuhlikana zalimin te mooy sunu borom waxul sax ay kuffaar lañu waaye ay tooñkat lañu ndax yow nekk ci kéefër rek doy na nekk ci shirk rek doy na nekk ci ay bidaa rek doy na waaye nag ne ku ci nekkul da nga koy bundu xataal loolu moom dafa jéggi dayoo borom bi it ne danaa leen dëkkal seen suuf ci seen gannaaw lii day nekk na ci sukkandukaay ñeel koo xam ne ragal na sama taxawaay daman xaafa maqaami nga xam ni lañ cay jëkk a déggee mooy sunu borom dane wa ma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inal jannata hiya almawa ku ragal ne bis dana mësa ñëw malaaka yi escorté la wa jaat kullu nafsin maaha saiqun wa shahid escorté la ba taxawal la sa kanamu borom yaak moom kenn du dox seen diggante place boobu boo fa jógee imma nga jëm aljanna wala imma nga jëm sawara ku ragal place boobu kenn du la bund xotaal ci diine ba tax nga dellu gannaaw am déet mi ngi noonu mooy li man xaafa maqaami li man xaafa waidit ku yàlla ku xam li yàlla digg ci sawara ne ku ma may sawara boobu ngay jëm amul ku lay mën a menacer ci kaw suuf ku lay mën a jënd ci kaw suuf ba tax nga jënd ko nar a dee dem sawara abadan mi ngi noonu doonte ne dañ koy dégg li man xaafa maqaami ay koo xam ne nii ragal na taxawaay bi yàlla di taxaw ci moom aman huwa qaimun ala kulli nafsin ma kasabat mooy sunu borom foo mën a nekk mi ngi lay contrôler inna allaha kaana alaykum raqiba ku xam ne yàlla nga koy contrôler mi ngi koy dégg mi ngi koy gis ku mel noonu dootu ragal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala am déet mi ngi noonu yàlla na yàlla boole ñu ca ñoom
تفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
sun borom jalla wa ala mu ne wastaftaxu noon la yéeféer ya sàkkoo ak ubbeeku wa xaaba kullu jabbaarin anid noonu la perte bépp ku mbëru woon koo xam ne dafa wone woon ak dëgër bopp min waraihi jahannam dana nekk ca gannaaw ba mu deeyee sawaras jahannam wa yusqa min ma'in sadid te dañ ko nandal ci ndox moo xam ne doxi dëtt lay doon yatajarra'uhu dana nekk di ko góox wala yakaadu yusiiguhu te du ko xaw a mën a nekk di ko wannaasu ay di ko wann wa ya'tihi almawtu min kulli makan dee dana ko jógal ci bépp place wa ma huwa bi mayitin te du nekk di aji dee wa min waraihi te ci gannaaw loolu lépp azabun xaliz mbugal mu tar ma nga ko fay xaaraat masalu lazina kafaru bi rabbihim misaalu ñuy weddi seen borom day amaaluhum karamadin istaddat bihi riix seen jëfee dafa mel ni ab dóom boo xam ne da caa upp upp bu tar li nga xam ne mooy ngelaw fi yawmin aasifin ci bis boo xam ne nii bisu ngelaw bu tar la aasif mooy ngelaw bu tar tar laa yaqdiruuna mimma kasabu ala shay nga xam ne dañuy am kattan ca lañu fàggu woon ci dara zalika huwa dalaalu lbaid lii de muy réer ga nga xam ne mooy ba gën a màgg mbokk julit bokk na yéeféer yi beewoon te ki ci mujjoon ci jamono yonent bi mooy abu jahal ba nga xamee ni nii ña ngay dem badr bokkoon na lu ñu waxoon ay yàlla ñu nag muhammad ku ci gën a tas mbokk ku ci gën a nekk di indi ay fitna ci xeetam yàlla na nga ko toroxal yàlla na nga ko mbugal mi ngi noonu ca mooy di sàkku ne na yàlla atte seen diggante ak yéeféer yi ak ak julit ñi sunu borom nee na bañ ko defee ca la perte képp koo xam ne daa mbëru ci kaw suuf aljabbaar mooy waaja nga xam ne daa mbëru ci kaw nit ñi xeeb leen puukarewu seen kaw anid koo xam ne nangul déggal borom bi subhanahu wa taala borom bi mu ne ko mel noonu ne perte na yaa ngi koy jàng ci suratu shams qad aflaha man zakaha wa qad xaaba man dassaha bakkanu doomu aadama ngi nii soo xeexeeg moom day ba nanguloo ko ndigalu yàlla dox digganteem ak tere yàlla texe nga waaye boo ko seetaanee baylu ko bayu ko mu topp ay bànneexam alku nga perte nga noo nit kon la sunu borom defe ñooñu boo dellu woon ci yonente bi ak sahabaam ña ko gënoon a sonal ci màkka yàlla boole na ko ak ñoom gannaaw ba ko waa màkka génnee te ñoom sax doonte ne sunu borom def ne fii yonent yi dañ leen wax da ngeen dellu jaamu lu ñu jaamu wala ñu génn leen ñoom ba ñuy réunion waa Màkka ca réunion ba seytaane fekke woon ko gis nañu am na ñu ne woon nañ ko génne waaye seytaane def ni kii ak làmmiñam bu neex bi su ngeen ko génnee dana dem convaincre yeneen arab yi ñëw dal seen kaw ca la ñu décidé ne kon nañ ko rey benn yoon ba sunu borom daal di koy jox ndigal mu jóge Màkka dem Madina ca ñaareelu at ba la daje kilifay Màkka yi ci Badr ci histoire bi ngeen xam yéen ñépp ca la yàlla daaneel juróom ñaar fukk ci ñoom sunu borom yàlla kon lam dige woon def ko mooy xaaba kullu jabbaarin anid léegi nag yowmal qiyaama sunu borom yàlla mu ne la nekk seen gannaaw mooy sawara jahannam nga xam ne benn place la ci place sawara yi am na jahannama laza sair saqar xokama hawiya yal na yàlla musal ñi ci juróom-ñaari bunt la laha sabatu abwaab li kulli baabin minhum juzun maqsum mi ngi noonu juróom-ñaari bunt bunt bu nekk am na tur ak ña fa war a dëkkee sunu borom mu ne ñoom jahannama la ñuy dem mu ne jahannama boobu bu ñu fa demee da ngay gis ne bokk na loo xam ne malaaka yi dañ leen di téye waa sawara yàlla da leen di naxtoo mar boo xam ne kenn mënu ko expliquer te mooy li xew àdduna ak lay xew àllaaxira amul lenn lu ca bokk lu dul tur tur rek la dañuy xiif xiif boo xam ne ni kenn mënu ko expliquer léegi nag loolee dañuy ñaan yàlla may leen ñu naan wa in yastaxiisu yuxaasu bi ma in kalmuhl la mi ngi noonu su ko defee dëtt ji bawoo ci ñoom ak rangoon ña bawoo ca ñoom nekk ca taatu sawara moom la malaaka yi dem di tànq di leen ko sol ñuy naan yal na yàlla musul ñi yonente bi alayhi salaam mu ne xatr ci zaqum boobu nee na bu doon dañ koy wàcc ci kaw suuf kaw suuf kenn du noyeeti loolu lañ leen di jox ñu koy naan borom bi mu ne ña ngi koy góox te borom bi su ma ne ba muy wax naan yuxaasu bi maa'in kal muhli yashwil wujuh heure buñ ko jegee seen karawu seen deru kanam yépp daal di ñor xom malaaka yi jël ko di leen ko forcé yete jarrauhu ñu koy góox góox par góox te duñ ko mën a wann nu muy def day xotti put gi xotti mbaq gi daal di wadd ca suuf fa taqattaat am aahum di loolu la yàlla wax day mi ngi noonu loolee la ñuy dëkkee abadan faw ndax loolu fa la yem sunu borom yàlla mu ne déedéet dee da koy dikkal ca place bu nekk ca moom du mën a dee gis ngeen mbokk sawara sunu borom neen li muy mbugale kenn du ko kenn mënu koo mbugale ku dul moom loolee yàlla di leen jox ci naan gi bokkul ak sawara bi leen di lakk aljahim boo xam ne di leen di lakk bokkul ak yaxmuum muy gaz ammoniaque boo xam ne moo leen di sëfakeel bokkul ak la fa nekk ci ay chaîne bokkul ak maqaami la yàlla wax muy bolde ya malaaka yi di dóor kenn xamul ñaata façon mbugal suñu borom mu ni yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan malaaka yi noonu lañ leen di diversifier seen mbugal ya dee di leen jóge fu nekk ca duñ mën a dee te gars yi léeg-léeg dee xéewal lay doon am na ndaw soo xam ne nii ñu ne dañ koo taal fii ci Kaolack yal na yàlla yërëm ko journaliste yi ñu ngi doon nettali ay waxam ak a neexoon ñu dolli woon ca la l'islam gisa loolu nee nañ avant muy dee daf doon wax waaye waay pikir leen ma ma dee waay pikir leen ma ma dee lu tax ndax jàpp ñu ne bu dee dana noppalu ci mbugal yooyee doonte ne mbokk julit du wax rey leen ma yow julitit doo rey sa moroomu julit abadan mi ngi noonu loolee kon ñu gis ne en en sunu borom yàlla subhanahu wa taala loolu lay wax ci wàllu googu moo dina ne dee da koy dikkal place bu nekk ca du mën a dee mu ne gannaaw li lépp it mbugal boo xam ne bu tar ma nga fa bu màgg ma nga fa mu am benn question buñ mën a laaj question bi mooy waaw kaw suuf day am na fi yéeféer yoo xam ne xeexuñu lislaam am na fi yéeféer yoo xam ne ñi ngi def lu baax médecin sans frontière am na ñuy faj gaana yi am na ñuy yóbbu ay ndimbal partout waa mais ñoom dugguñu ci lislaam ñooñu lan muy seen mbir képp ku ci dégg lislaam te duggoo ci lislaam sawara mooy sa wàccuwaay am déet wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu lu tax mooy mbokk lu baax ci kaw ngëm lay tege tey waa ji bëggoon yëkkati benn immeuble am te ne du du ko fondement day ñëw rek teg ci kaw suuf di dem ndax dana sotti lu mu gën a gudd ab dilam di gën a métti loolu kon mi ngi noonu fokk nga am ngëm nga am titre d'embauchement waa ji xale bi demoon fekk fii gars yi gas tali bi rek wala di chantier moom mu ñëw rek fekk ñu liggéey mu commencé di liggéey weer wi dana mu dem taxaw ndax dana fayu ci kenn mësu ko inscrire fenn koo nit l'islam noonu la fokk da ngay dugg ci diine la ngay def lu baax doog a valable amma bu dee ne yow defoo li ñuy tudde dugg ci biir diine l'islam loo mën a defeti ci jokk ak mbokk loo mën a defeti ci ay sarax loo mën a defete ci xettili jurit ñi yàlla day mën na la ko fay fii may la jàmm may la aafiya kaza wa kaza amma alaxira sunu borom nee na lam liggéey yoon lépp day mel ne jalub dóom xam ngeen dóoma xëy na gone Dakar duñ ko xam mooy cendre dóom ah léegi bo dóom jal bu jalu jal bu rëy léegi nag bu si ngelaw bu tar benn ouragan wala benn cyclone bu tar ñëw jaar fa da koy ramasse ba lépp jeex takk nee na noonu la mbiri yéeféer dem ci koo xam ne yaa ngi def lu baax ca jëf lu baax ba ànd la ngëm yàlla moo tax sunu borom ne lii day mooy réer ga gën a màgg ci ak réer yal na yàlla musal ñu ci
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
سنبرم سبحانه وتعالى مني ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق خنا جسوني يال بندنا أسماني أكسوف تدق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد سكوني خيم يبلين إن بندن قباس وما ذلك على الله بعزيز تليدي نكل يال لوي أجته وبرزوا لله جميعا ëllëg nag la yàlla di fang nit ñi ñépp ñu nekk ci kanamu borom bi subhanahu wa taala fa qaala duafaau lilladina stakbaru noonu lay wax ña néewoon doole ñeen ñi riy riilu woon inna kunna lakum tabaa ah waa ñun yéen lañ toppoon fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ndax man ngeen ñoo fegal ci mbugalu yàlla mi ci dara lu mën a doon qaalu law hadana allahu la hadaynaakum ñu ne ñun kat bu ñu yàlla jubaloon daañ leen jubal sawaun alayna ajazina am sabarna yemoo na ci ñun ñu daal di lottu daal di ñikki wala yemoo na ci ñu nit ñu muñ maa lana min maxiis amul lenn lu ñu mën a muccal ci ci bëggalu yàlla mi ngi noonu mbokk sunu boroom moom daf ñoo woon ay kattanam ngiree jullit ñi wala borom xel yi sax fa ñu sikk sàkk ci ay waxam looloo tax gisuñu ko waaye gis nañ ay mbindaa fanam yéeféer yi bokk na li leen yéemoon ndax yàlla mën na dekkal ko dee ndax yàlla mën na nit nekk ci kaw suuf yàlla di wax ak moom kaza wa kaza sunu borom mu ne xool leen yàlla mi bind asamaan yi ak suuf ci dégg boo ko xoolal jant bi kañ la ko fi yàlla taaloon xoolal sunu weer bi nga xam ne mi ngi nekk di wër suuf si suuf si di wër jant bi xoolal coordonnée boobu sunu borom dëppale ko loo xam ne nii dafay continuer di daw ay siècle siècle yàlla dong moo xam kañ la woon donte ne yéy firi ñoom il parle de milliards d'années loo xam ne ba tey benn désordre mus cee am ndax ki def lii di borom kattan waaye borom xereñe ni azizul hakim ndax ki def lii am na lenn lu ko të dara moo tax mu ne xalaqa allahu samawati wal arda bil xaq léegi nag yéen yéefir yi nekk fii bañ a jaamu yàlla yàlla soxlawu leen mi ngi noonu su ko neexee mu jël leen daal di indi ñeneen te loolu yàlla teewul yàlla par preuve gars yi téeméeri at ca gannaaw ñun ñi nekk ci jàkka ji kan moo fi nekkoon kenn nekk fi woon téeméeri at ci kanam ndax ñun ñii ci jàkka ji kenn dana fi nekk man da yàlla bu ma ci bokk te nit yàlla bu ngeen ci bokk mi ngi noonu yeneen bi alei sam da ko doon ñaan mooy yàlla yàlla nag ma musal an uradda ila arzalil umur dañuy tudde màgget bu xubi daas ay da ngay dee rek kay ñaanal dee dem àjjana rek waaye nekk fi ñu lay wéere ka wéere nga nekk charge ci say mbokk loolee julit wuru ko ñaan yàlla mi ngi noonu su ko defee kon sunu borom gis nga yóbbuwoon na sunuy maam te it ñun ñi ngi nekk fii bis dana ñëw mu yóbbuñu indi ñeneen bu dee àdduna tukkiwul sunu borom nag ne bis dana mës a ñëw barazo mi ngi noonu albaraz mooy place boo xam ne nii da nga faa dem mu tàlli ñareet sunu borom mu ne suuf si yasalunaka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa fa yazaruha qaan safsafa sunu borom day maasali suuf mu nekk benn plateforme ba plat boo xam ne ñéppay gisante ñéppay feeñ amul tund amul xur laa tara fiha iwajan wala amta su ko defee sunu borom ni aadama kaay aadama ñëw mu ne ko say njaboote ngi nii yàlla xam ñaata centaine de milliards la ñuy doon wala ñaata milliers de milliards la ñuy doon allahu alam mu ànd ak jinne ya ànd ak malaaka ya léegi nag sunu borom yàlla dana indi sawara daa di taxawal gaa yi war a dem sawara yépp ñu ngi gàddu seen dossier xam nañu sawara lañ jëm su ko defee ñu jàkkaarloog nag ña nga xam ne ñoom lañ toppoon bañ a jaamu yàlla mi ngi noonu ñañ toppoon bañ a jaamu yàlla daa di ne leen waaw yéen ñun yéen lañ toppoon mbugalu yàlla bi ndax mënu leen ñu cee fegal dara gaa yi ne leen hey buñ yàlla jubaloon ñu jubal leen doonte ne loolu du lay gaa yi sunu borom mooy jubal ku ko soob ci ay jaamam waaye mooy ña nga xam ne ba yàlla wootee ci la mi ñu ay yonentam seen xol jublu na jéem a jub yazidullahu lazina ihtadaw huda amma ña jéngoon wane ak dëgër bopp falamma zaahu azaaga allahu qulubahum mi ngi noonu loolee kon la sunu borom di nettali ci place yu bari istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u keroog ba muy dañ nañ toppoon te ñu leen toppoon ah ñun bu ñu yàlla jubal ñu jubal leen ah léegi nag tey moom say boo ñu muñ ak ñu ñàkk muñ benn la amuñu fenn foo xam ne mën nañ caa muccee loolu it moo tax ba da ngay gis ne jullit ñi ñoom yàlla waxoon nañu sànq ne wala nasbiranna ala ma azaytumaha kaw suuf moom boo fi muñee looy muñ muñ santaane yàlla yi muñ dogale yàlla yi muñ nattu yéeféer yi su boobaa loolu dana la jëriñ alaxira amma boo demee ba alaxira dooga muñ loolee nga muñ ak nga yuuxoog nga saalit yépp a yem mooy maa lana min maxis amul fenn foo xam ne mën nañ faa muccee mi ngi noonu
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
sunu borom jalla wa ala mu ne wa qaala sheytaanu lamma qudiya al amru noonu la sheytaane di waxee ba ñu attee mbir ma inna allaha waadakum waada al xaq yàlla day digoon na leen digub dëgg ba wa waadtukum manit digoon naa leen fa axlaftukum waaye njuuy naa leen wa ma kaana lii wa ma kaana lii alaykum min sultaan ñeeluma woon nag ci seen kaw benn lay kattan gu ma leen doon poussé ci ci ci mooy yàlla illa an daawtukum fastajabtumu lii dama leen woowoon dong ngeen wuy si ma fala talumuuni wa luumu anfusakum tey nag bu ma kenn yedd yedd leen seeni bakkan ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixi munuma leen a muccal ay xettali leen ci li ngeen nekk yéen kenn munul ñoo dima xettali inni kafartu bima ashraktumuni min qablu man weddi naa la ngeen ma doon bokkaaleel bu jëkk inna zalimina lahum azabun alim tonkat yee sunu borom mu ne dana leen ñeel mbugal mu tar wa udxila alladina amanu wa amilu salihat nii la ñuy dugalee ña nga xam ne dañoo gëmoon ci jëfan jëf yu baax ya jannatin tajri min taxtiha al anhar ajjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex xaalidina fiha bi izni rabbihim ñu sax fa ba fàww ci seen ndigali borom taxiyatuhum fiha salaam la ñuy nuyonte seen biir moom mooy salaam ak mooy jàmm jàmm rek mi ngi noonu mbokk sunu borom mu ne bu dee atte nañ mbiri yowm alqiyaama waa àjjana ñépp dugg nañ aljanna yal na yàlla boole ñu ca waa sawara yépp dugg nañ sawara léegi xeet yaa ngi rëbbante kullama daxalat ummatun laanat uxtaha ku nekk di rëbb diw ma ma réeral kooke di rëbb ko ko réeral kooke di rëbb ko ko réeral bañ yegg ci kilifa gu magga muy seytaane ku réer rek moo la réeral moo réeral firawna moo réeral ñoom haman moo réeral yéefir yi fi jaaroon ñépp ba ñu fi nekk ñi ñépp ku réer rek seytaane la réeral mooy xizbullah ak xizbu seytaan ñaar yëpp ñu nekk ci kaw suuf am déet mi ngi noonu bëri mbëri woon na ci kanamu borom bi na ko sa jaam yépp dinaa leen ngalaab yóbbu sawara xanaa lu dul néew ca ñoom léegi nag seytaane coow li bari na mu daal di jóg taxaw ci kaw min baram daa ji ne hee yéen nit ñi bu leen mën a sonal xam leen ne yàlla digoon na leen dig bu dëgg bu dëgg ba ma ni digoon naa leen ca man la ma leen digoon njoy naa leen ca mbokk seytaane mi ngi noonu day dig doomu aadama bi nit ñi dañuy wax rek alaxira amul wala même ñi jàpp ne alaxira am na mu ne mooy garaawul sëñ diw rek na problème yépp fexeel ba am alal fexeel ba am santé ak CFA fexeel ba am nangam nangam alaxira sëñ bi rek na ko waay gis ngeen nu la neex def ci yàlla digoon na leen ci téeram bu tedd bi ci sunna yeneen bi ma leen ma dig leen yàlla moom ay digam def na ko man nag la ma leen digoon njuy naa leen gis ngeen axlaftukum léegi nag beneen mbir bi mooy ah man oomu woon kattan nag ci puus leen ci lu bon gaa yi seytaan dana fekk ab jullit ci kaw lalam mu daal di koy yenn yóbbu ba sayal naayet na ko feccal naanal sàngara mas ngeen gis looloo waay déedéet musuma leen a jën ci dara man dama woote woon dong mi ngi noonu indi naa samay sàngara indi sama jongama yu rafet génne sama xaalis génne sama pal woo leen ni leen gaa yi kaay leen yéen ñëpp ngeen ñëw kon nag bu ma kenn yedd ku yedd na yedd boppam loolu tax sunu borom ak ñuy nettali ne yowma yauddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaxastu maa rasuli sabila ya waylata la laytani lam attaxis fulanan qalila nit ki dana dem mere boppam ba ñaari loo xam ne dugal ci gémmiñam matt ba mu dagg bu leen ma yedd yedd leen seen bopp dama woote woon rek ngeen wuy si ma tey jii nag coow li moom jaru ko parce que man munu ma leen a musal te yéen it munu leen maa musal lépp lu ngeen ma doon bokkaale ak sama borom man weddi naa ko tey xam leen ne képp ko tooñ mbugal mu tar moo koy ñeel mbokk lii mbokk sunu borom bu ñu koy nettali daf ci am yoo xam ne yow mi gàtt xel da nga ne mais si sawara mbugal ba fa nekk nu ñu amee jot di waxanteek déggante waaye mbokk loolu mooy kàttanu borom bi subhanahu wa taala day bàyyi ak waa sawara seedi xel ñuy mos mbugal bi à cent pour cent ndax bu doon kaw suufa mbugal dana toll foo xam ne boo ca yeggee da ngay xëm wala nga dee am déet amma allaxira sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo am na kattan ci téye yéeféer yi seen xel du teqalikoog ñoom te dee di leen jóge fu nekk te duñu mën a dee loolu tax ñuy mën a waxante loolu tax ñuy mën a comprendre ba dem nañ ba jamonoy tey mu am lu ñuy tudde des experts de la torture ñu jàng médecine ba kawee ci ah mën a jël ay nit di leen mbugal guddi ak bëccëg ci prison yi te duñu dee mi ngi noonu am na ay dëkk arabe sax yu ci siiw ci torture googu ba léeg-léeg américains yi dañuy jël sax ay nit di leen yóbbu foofu ala kulli xaal yàlla ci xikmaam yàlla ci xam-xamam da ngay gis ne dana mbugal ay jaamam ay milliards dana ci duñu dee ay milliards dana ci duñ teqali ko seen xel duñ fa nelaw duñ fa gëmmentu loolu lépp ci kattanam la jalla wa ala amma ñooñu may waa sawara bu dee nag ña nga xamee ne dañoo gëmoon cay def lu baax du waa Sénégal du shérif ya du waa Makka du ñu xonq ña du ñu weex ña charte bi mooy lan mooy ñu gëmoon cay def lu baax du loolu la yàlla wax day ñu mel noonu daañ leen dugal aljanna malaaka yi escorté leen zumara ba tabba leen fa nga xam ne mooy aljanna waa sawara ña nga ne di naan dëttuñ goo xamee ni nii kenn mënu ko misaal amma waa aljanna lu ñu naan tajri min tahtihum al anhar dexi meew yaa nga dexi sangara yaa nga dexi lem yaa nga dexi ndox yaa nga salsa bi la nga ne zanja bi la nga ne loo xam ne nii mi ngi noonu dem mos rek la yàlla na yàlla mosal ñu ko gis ngeen tajri min tahtihim al anhar sunu borom subhanahu wa taala mu ni dañ fay sax be faw lii lépp nañ mi ngi amee bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom te ajjana it ku fa dugal ci mbaaxu yàlla nga fay dugge say jëf lu mu bari bari matul paasu aljanna ngaa yi sa dund gi c'est très limité sooy fi jaamoo yàlla cent ans bari na allaxira moom dafa sax ba faw looloo tax ku dugg aljanna rek yàlla ci dolli ak mbaaxam mi ngi noonu bi izni rabbihim ci seen ndigalu boroom su ko defee seen nuyonte ya mboole seen mooy salaam ay yow jàmm ngay nekkee ku dikk it jàmm la lay indil wallaay léegi lañ gis benn ay gars yi nekk ci place di xaqataayeeg ak a waxtaan ak nangam nangam ba mujj téléphone sonné rek perturbe ba jataay bi yépp am déet mooy diw dee na léegi oto bi accidenté na léegi wala nit fëgg la ñëw am na lu xew ah diw ko nangam indi la histoire boo xam ne yàqal na la sa adduna yépp amma allaxira loolu amu fa jàmm ngay nekk ca ku la dikkal jàmm ngay la lay indil koo fekk ci àjjana yépp jàmm rek nga koy fekkee tahiyatuhum fiha salaam lii mbokk da ngay gis ne mooy la sunu borom yàlla subhanahu wa taala tëjee jataay boobu insha allah dañ koy tëjee sunu tafsir bi ngiree ñaan yàlla boole ci min ahli aljanna yal na yàlla boole ñu ci min alladina amanu wa amilu salihat mi ngi noonu defal ñu ko sunu njaboot ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad bokk na ci ki ñuy laaj ndax ki dee ci lakk dafay shahid na am mbokk jullit jullit bu dee ne yàlla daf ko nattoo mu dee ci lakk yonent bi alayhi salaam mu ne ku mel noonu de shahid ndax yonent bi alayhi salaam ci mbaax gu ko yàlla defal xeetam di ngeen ji xeet mas na wax sahaaba yi lan ngeen jàpp ko shahid ñu ne ko ah xanaa ki jihad fi sabilillah ba dee ca toolu ba mu ne waaw bu dee loolu day kon sama shuhada xeet bi day tuuti waaye ku def nangam shahid nga ku def nangam shahid nga ku def nangam shahid nga te la waxoon ne képp koo xam ne da nga dee ci lakk ku mel noonu itamit da nga shahid loolu mu doon loo xam ne lu metti la trop waaye dana béggaloo ay mbokkam yu bàyyi gannaaw su dee ne nekkoon na julit bu gëm yàlla subhanahu wa taala waaw kii muy laajit mu ne ban somme la ñuy génnee ci zakat ala kulli xaal mbokk zakat ñi ngi koy génnee ci la nga xamee ne ni mooy jamono yonent bi alayhi salaam ñaar fukki dinaar dinaar boobu borom xam-xam yi dañ ni mi ngi toll ci quatre grammes cinquante mi ngi noonu non quatre grammes vingt cinq mi ngi noonu quatre grammes vingt cinq léegi boo ko xoolee day nekk quatre vingt cinq grammes su ko defee ci jamono bu nekk ci dëkk bu nekk day changer selon mbir yi léegi kon da ngay dem ci tëgg bi nga laaj ko waaw quatre vingt cinq grammes d'or tey ñaata la mën a ñaata lañ ko mën a amee boole naa temps lañ ko mën a amee ñu xam ne loolu mooy nisab bi nga xam ne ku ko am fekk denceen nga ko ren ba déwén zakat war na ca mi ngi noonu fekk denceen nga ko ren ba déwén zakat war na ca ki mu ne lan lan luñu ñu dolli ko leeral ci li sunu borom wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum ila axiril aya ala kulli xaal sunu borom dane dikkal na leen yonente boo xam ne ci yéen la bokk te loolu tamit di mbir boo xam ne jullit yi ñoom dañ ko war a gëm mooy dina ne yonente bi alayhi salaam nit la comme ñun du malaaka nit la comme ñun ni ñu nekkee nit it la nekkee nit am na benn xadis boo xam ne dañu naan yonent bi def na jaabir awalu awalu ma xalaqa allahu ya jaabir mooy nuura nabiyik mooy sa leeru yonent moom la yàlla jëkk a bind ba moo tax sun maam yu bëri woy ci ay woy naan wa min nuurihi xuliqa al akwaanu kaza wa kaza loolu da mbokk da ngay gis ne foofu lañ ko sukkandiku mënuñu leen a yedd waaye loolu mbokk xadis boobu nekkul lu wér la nga xam ne mooy la wér mooy li sunu borom wax innama ana basharun mislukum la wér mooy la yonente bi alayhi salaam wax mooy ana xayru walad aadam mi ngi noonu kullukum min aadam wa aadam min turab nee na maa gën ci doomu aadama yi yéen ñëpp aadama ngeen jóge aadama ci suuf la jóge kon yàlla moo bind sunu bay aadama ci suuf la ko jëlee bind ca soxnaam sa daa di cay génnee rijaalan kasiran wa nisaa minhum ar rusul ci biir rusul yooyu ca la sunu yonente alayhi salatu wasalaam bokk kon nit la koo xam ne comme ñun la lenn rek mooy suñu différence ak ñoom ak ak ak ak moom wala mboolem yonente sax mooy yàlla da ko wax yu loolu tax li ñu daan gaar yëpp da ko daan gaar da daan xiif da daan mar da daan dem douche mi ngi noonu da daan dem wanag am déet mi ngi noonu da daan dem wanag loolu ku ko waxoon tey ñu dóor la ci mbooloo ko demoon ci Sadaga wala Colobane ne sëñ diw dee dem wanag dañ ñu dóor ba ngay bëgg a dee Abdullah ibnu Omar mu ne maa ngi toog ci nekk ki nga xam ne ni mooy Hafsa magam la gis yonente bi alayhi salaam mi ngi dem wanag mi ngi won kaaba gi gannaaw ca loolu moo tax borom xam-xam bi sukkandiku ko la ñuy bañ mooy jàkkaarloo kaaba gi wala woon ko gannaaw ci àll la mais bu dee ci biir miir loolu du du du du doon dara da daan ànd ak ay soxnaam da daan feebar lim mujje def mooy li doomu aadama mujje def mooy daa faatu am déet daa faatu de laquwul demul fenn daa faatu ñu daal di koy def ci bàmmeelam suñu borom mu ne yowmal qiyaama lay génn kon nit la woon comme ñun lan mooy suñ différence ak moom mooy yàlla dafa wàcce woon ci moom téere bu tedd bi wàcce ci moom xam-xam boo xam ne moom la koy firee muy al xikma loolee buñ ko toppee insha allah am texe àdduna ak texe àllaaxira yal na yàlla yombal ko ci ñun waaw yaakaar naa mbokk su dee ne mbokk yi amuñ ci woon lu xaw urgent mën nañu bàyyi ba yàlla dajale waat ñu fi rek kon subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk